su génnee Wakam dakaar Wakam bu génnee Wakam dañu war a jubal directement dem Yoof suñ fa jógee ñu koy jubal Ngor hmm. soo fa jógee door a dal si caaro yi hmm. xam nga lu xew bu hmm. ñu bàyyi lii maam bi daan def ñu ne dañuy mënaatu di defi affaire lii wóor daal man dama ne ba bunta ma adhéré que Ablaye Matar moo tey li muy def tey ka passé wul nga ñëwoon ne da yaay grand sëriñ di incarné maay patron ñi doo sunu patron. mu ngi dundal maa ngi dundal. bu bëggee suba ñu dege Sandaga. mu leer man amuluma si tiit. manu loo gan di yeewi ay bëy. grand sëriñ mooy gan. gan la ku ma am jóge kooki. góor gi jóge woon kooki jàng alxuraan. ci Dumbe. déggoo fi may. <laughs> Euh, xam nga. ak maam Sakho Fatou Diop. xam nga cosaan kenn du ko changé <laughs> Ablaay waxuma sax ko dul Ablaay hmm. képp koo dégg ne man mu ne mu fëgg dënam ne man su grand sëriñ yi laa bokk hmm. bu nekkee leneen tamit bu nekkee la butam day da jëli si ndeyam wala si leneen parce que hmm. doom ñaar la mais nan ngay mën a gisee àlla al Ablaye Matar ak expérience ba mu am sénégalais yi tekk fañ ko war a teg mu dellu gannaaw ñoo di indi ay mbiri bodde konte hmm. loolu laa d' loolu nga d' accord bodde konte rek ci ci ci wàllu xeet waaw noonu nga ko mën a jàngatee ndax bu dee dane euh, dégg nga ñoom dañoo am seen i seen i seen i mbër mooy kii sant Ndooy kii sant xawma Sarr hmm. Diouf saar Alioune Ndoye euh, ci au vingt et wax dëgg yàlla deux mille deux mille deux mille vingt et ah, wax naa ko sànq ci Blaise Diagne xay na amoon na waaye boobu nag yàgg na ah, ñu fexe ba nangu mbir yi ci ñi fi nekkoon jox ko te boobu xëy na ñu ngi ko doon du ñu ay sénégalais. daan waaw pour mu nekk premier.